suñu si suñu doxalin suñu économie suñu koom-koom ak suñu société ni muy fonctionner euh, gis nañu même période de pandémie bi daanaka euh, livraison bi mu ngi doon dox et donc poste euh, jàngat na que amna rôle bu mu war a a jouer en tout moment et en tout lieu Walu si période pandémie donc dañuy livrer et puis aussi xam aussi kon à tout moment mun nañu def suñu liguey. moo tax ñun tamit euh, ñu yaakar il faut que ñu am ay jumtuwaay yu euh ñu préparer wu pour continuer suñu liggéey moo tax ñu jënd outil yépp euh, am ay moto pour euh, continuer liguey parce que le dernier mètre aussi c'est important am nga fi nga xamné né auto mu mënu fa yegg donc suñu moto yi ñoo fay dem et c'est donc amna ñu gam yi moto auto oto yu xaw a mag yu 6 tonnes camion yu 30 tonnes euh, pour en tout cas euh, distribuer euh, bépp marchandise wala bépp colis wala en tout cas lettre courrier donc préparé na donc ñu ngi gërëm postier yi ñu ngi wax aussi gën a ñaax état bi mu jàppale poste parce que rôle poste bi muy rôle am dafa am solo si doxalin suñu économie si fonctionnement suñu société mais surtout créer

Euh, produit bu am solo la ensuite aussi ñu ngi lancé ci walu commerce électronique euh, benne foire en ligne post market 3.0 pour en tout cas gën a rataxal euh, jënd bi ak jaay et dañ gën rataxal aussi relation communication entre acteurs yi loolu dafa am solo parce que légui comme pandémie dafa démontrer que mun nga nekk sa kër so amé ki nga wóolu mun nga ko yónni mu jënd wala mu livrer la loolu moo tax ñu euh, créer en tout cas euh, foire boobu Post Market 3.0 ay entreprise 100 pour cent Sénégal Post moo ko moom loolu dafa am solo